réew mi ci ci wàllu politique bari na également loo xamante ne mu ngi xew fële ca assemblée mais euh, balaa ñu fay dugg mënuñu la am ci plateau bi te te te laaju ñu la par rapport à coow bi nga xamante ne moom moo dox en ce moment euh, ci yow euh, sa diggante ak yow ak acteurs yi nekk ci réew mi déjà kàddu yi nga yëkkati woon ndax yaa ngi koy rëccu en fait c'est déjà di la nuyu bu baax encore une fois di nuyu sénégalais yi di wax ne Euh, wax ju ci nekk rek ak contexte am donc euh, c'était un contexte particulier mm-hmm. euh, c'est une vidéo boo xamante ni am na ñetti at ci suñu ginnaaw ma nekkoon ak ay xale ci Médina ci benn classe mm-hmm. euh, doon waxtaan ak ñoom li nga xamante ni mooy suma conviction mooy ni ñu war a fonkee jàng ni ñu war a fonkee xam-xam ak ni ñu nga xamante noonu lañu war a tege suñu bët ci li nga xamante ni aussi moom mooy réalité mm-hmm. xam nga boo demee tey ji wala nga dem Nigeria fii nga fekk Nollywood fee nga fekk fa Hollywood nga fekk mais c'est des mondes à mm-hmm. xale bi seetaan moom dina mën a dina am gunge boo xam dinañ ko ko gunge pour mu xam ne c'est une fiction télé-réalité la mm-hmm. alors que boo ñëwee ci suñu dëkk yi mën na bañ a méngoo ak loolu fii nga xamante ni euh, le taux de décrochage scolaire dafa bari le taux de déperdition scolaire dafa bari le fond de ma pensée c'était de leur dire de faire le focus sur les études de se battre mën nga nekk sportif après mën nga nekk artiste culturel mais bul négliger mukk sa jàng c'était ça le fond de ma pensée bien entendu ñoom euh, ci seen bopp xam nañ ne le secteur euh, bi boobu nga xamante ni mooy cinématographique bi nga xam su ma yéene tey bokk na ci ñu xeex pour am le statut de l'artiste bokk na ci ñu xeex pour injecter ci waat de l'argent pour accompagner leen de la maison de production jusqu'à l'acteur bi nga euh, xamante justement ñoom jàpp nañu ni que bu ñuy xaar ku mm. leen di xeexal du du doon yow parce que xeebel xëy na la ñu sentir du tout du ñu génn ci seen contexte mm. mais su fekkee ne am na si koo xamante ni dinañ compter si moom c'est c'est bien entendu moi le statut du de euh, de l'acteur ci ñi koy gën a taxaw laay bokk mhm. donc euh, Pape Djibril Fall ku ko xam xam ne ku fonk doomu aadama la waaye euh, xam-xam ak jàng ak euh, dimbali xale yi pour ñu gën a fonk seen jàng gën a fonk seen mhm. éducation loolu pour man ça me paraît primordial. Mhm. en fait li may regretter mooy l'instrumentalisation qui a été faite de ces propos mais boo ko dugalee ci contexte am. dama daje ak koo xamante ni c'est le président du du conseil du conseil d'administration euh, d'une école bu nekk fii ci Kër Massar mu ne ma la vidéo a été projetée devant dans un amphithéâtre devant les élèves bari na kër yoo xamante ni projeté nañ ko fa xale yi seetaan ko. Mm. soo ko génnee ci contexte am nga dagg ko c'est ça aussi notre époque. mooy nit yi mën nañoo jël tey jii sa benn ex propos wala dara génne ko ci contexte am ki koy xool leneen la koy jox. mais évidemment que ñi nga xamante ni choqué na leen mais dama dama leen siy jéggalu mais c'était pas ça le fond de ma pensée le fond de ma pensée moo doon defar ak yitte boo xamante ni am naa ko si jàng ak yitte boo xamante ni am naa ko ci bëggatuma nit nekk ci secteur boobu am ñeent fukki at di am problème loo fajoo mm-hmm. bëggatuma nit nekk def dundam yëpp def ko ñeent fukki at ci loolu ana bay pël ci yan condition la fi jógee ana moxoro jëgay ana góorgóorlu ana ñooñ ñëpp nga xamante ni dañuy jël seen dund yëpp def ko ci loolu di bégal sénégalais yi te après au euh, la fin de leur vie du ñu mën a am loo xamante ni moom la ñu mën a euh, fajoo sax di def ay téléthon donc moi je vais me pour le statut de l'artiste je vais me battre pour y mettre un contenu je vais me battre pour les maisons de production dootuñu gagné ci xaalis bu bari xale yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo yaakaar secteur boobu di am problème pour am euh, loo xamante ni moom la ñu dundee. c'est ça le fond est-ce que du peut-être euh, lynché bi ñu la lynché moom moo tax nga nga indi loolu wax ko parce que yaa ngi koy door a wax beneen bi mooy. Mm-hmm. Euh, sa posture de donneur de leçon. est-ce que mm-hmm. du moom moo lay jural à chaque fois yu ñuy gis. artistes yi lynché la auparavant c'était peut-être les politiciens mm-hmm. wala bu ñu waxul politiciens ñenn ñoo xamante ne dañu far ci ay parti man gëw ne dama am posture de donneur de leçon mais yàgg naa dugal borom am naa yeneen mbir yu baax am naa yeneen mbir yu jag li nga xamante ni mooy suma conviction dama koy partagé ñaari liggéey yi nga xamante ni yëpp moom moom li nga xamante ni moom la ma sunu borom euh, jox comme comme comme comme euh, outil yoo xamante ni moom lay mën a utiliser muy le fait ma nekkoon journaliste mu nekk liggéey boo xamante ni bu am solo la. li nga xamante ni tey jii aussi moom lay def tey nga xamante ni je revendique le le fait que je suis un homme politique yooyu yëpp dafay yóbbu ci ngay jël parole dans l' espace public et booy jël parole dans l' espace public da ngay expliquer da ngay da comprendre te loolu du donneur de leçons justement c' est à dire que réew bu ñu demee ba soo jàkkaarloog ñun jaar fi xale yi jaar mënatoo leen a wax fi ñu war a jaar ñoom Fatou Abdou di nga daje xale buy dugg ci presse bi nekk journaliste mais li muy xaar ci yow mooy nga jox ko conseil donc on ne peut pas demander aux gens de ne pas donner de conseils justement c'est des conseils yoo xamante ni dama ko doon joxe et c'est ça que je continuerai di ko def ci station boo xamante ni moom laa mën a nekk parce que encore une fois je pense que ne le partage d'expérience ak partager li nga xamante ni moom mooy suñuy conviction je pense que c'est extrêmement fondamental mais encore une fois mësuma am euh, ambition ne damay blesser qui que ce soit ak defar rek laa bëgg te fu ma mën a nekk loolu rek laay bëgg a def ak euh, station bu mu mën di nekk loolu ñi ma xam yëpp mën nañ ko seede et justement on parle des acteurs li ma ci waxal kenn xamul ni mu toll ay kilifa. Mhm. ñu ci bari ñoo xamante ni wax naa ak ñoom. et bi ñu génnee ci mhm. et je dois préciser. Mhm. que ci élection bi ñu génn législative yi j'étais presque le seul candidat bu ñu doon dégg muy wax sur les artistes. parce que Ibrahima Mbaye Sopé ñëpp xam nañ ko moo dirigé woon suñu liste départementale à hmm. donc beneen bi mooy ñun rek lañ déggoon ñuy wax sur les artisans parce que ñun ñoo jëloon artisans yi ànd ak ñoom dem ci campagne boobu donc ñun on est très sensible à ça dinañ ci ñëwaat ci biir waxtaan bi ce n'est pas pour rien aujourd'hui bi ñu oui dañuy baral comme <laughs> ah, ah. yaa ngi koy wax dañu ko génnee ci contexte am avant ñu génn ci chapitre boobu hmm. euh, pour yow lan moo expliquer trois ans après loolu nekk sur la scène publique malheureusement dañuy def euh, dañu nekk ci politique dugg ci politique mooy lii bokk na jël tax ñu dugg ci politique parce que politique pour ñun tous ku coups ne sont pas permis politique pour ñun du waxante lu ñaaw politique pour ñun du defante lu ñaaw politique pour ñun du utiliser des armes non conventionnelles dañoo jàpp ne politique pour ñun waxtaane Sénégal la malheureusement euh, y a tellement de détails de faits divers ba boo ñëwee sax léegi même dans les médias pour nga waxtaane Sénégal dëgg pour nga waxtaanee mbay mi pour nga waxtaanee càmm gi pour nga waxtaanee bay bi pour nga waxtaanee or bi Sénégal pour nga waxtaanee école Sénégal l'éducation daanaka doo ko mën parce que Samba nee na Demba nee na Ousseynou nee na non donc le débat tourne autour de personne alors que ñun li tax ñu dugg ci politique justement c'est parce que dañu observer l'affaissement de la parole dans l'espace public mu amatul benn benn benn substance loolu moo tax ñu dugg ci politique dañoo dugg ci politique jàpp ne suñu responsabilité de génération tey c'est faire bouger les choses c'est faire avancer les choses justement parce que c'est comme si dañoo bëgg fantasiro ak xuloo ak xeex on adore le sang quand il dañoo bëgg que le sang te ñun dañoo jàpp ne fantasiro boobu ci politique depuis Senghor ak euh, Lamine Blaise ak Senghor ba Mamadou Dia ak Senghor ba Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade plusieurs fois ba Macky Abdou Diouf Abdoulaye Wade Idrissa Seck Idrissa Seck Macky Sall ba tey Macky Sall Karim Wade Khalifa Sall Ousmane Sonko et on pense que ne Sénégal sonn nañ ci clivage politique ak xeex ci politique surtout en utilisant des armes non conventionnelles loolu moo tax ñun suñu génération dañu ñëw élever la parole dans l' espace public mën a wax wax joo xamante ni kilifa yi dina dinañu mën a dégg xale yi dinañu mën a dégg ba pare dinañ ci mën nit ñi dinañ ci mën a gindiko c' est ça aujourd'hui notre fenêtre de d' accord alors ñu dañuy tëj chapitre boobu et puis on va euh, boo ko defee ñu mën a aborder point yu bari même si li ñu dese ci ay simili bariwul euh, ñu gis ne am na coow boo xamante ne juddooti na euh, ca assemblée cette fois mu ñeel loi de règlement d' abord balaa ñuy ñëw ci coow bi sax est ce que mën nga dellusi ci lan mooy loi boobu. loi de règlement xam nga loolu yëpp dafay poser wat beneen débat c'est la c'est le débat sur l'évaluation mm-hmm. la planification et l'évaluation xam nga loi de règlement suñ koy laaj mooy dañ ne waaw daaw de nattal noonu leen gafaka waaw ren balaa ñuy nattaat beneen gafaka ndax lële du ñu ñëw ba xool li ñu autorisé wul ñun ndax fi ñu ko waroon a jaarale jaarale nañ ko fa ba pare ñu ne du ci dal loolu dafay posé waat beneen problème c'est le débat sur la transparence c'est le débat sur la reddition des comptes c'est le débat sur la redevabilité maanaam nan la ñuy def ba képp koo xamante ni nattal nañ la ci ci ci ci ci Sénégal alal nga jaarale ko ci yoon ba xaalis bi fi nga xamante ni foofu la war a dem mu dem fa malheureusement débat boobu mu posé waat tey te ça peut mën na mën na grippé waat la machine mën na fexe ba liggéey bi du jaar ni mu war a jaar ndax coow dina bari parce que kaay leeral rek débat bi amoon na fi en deux mille vingt et un mhm. en deux mille vingt bi Covid bi ñëwee sur les mille milliards. Mhm. am na ci ñoo xamante ni mais Sénégal la gis un mi qui a les magistrats de la cour des comptes mu ne du ko Sénégal la ñu ko gis leen sama bureau ci biti. Sénégal lañ ko gis. Mhm. donc loolu moo tax débat boobu loolu moo tax sur la loi de règlement malheureusement euh, les mêmes faits produisent les mêmes lii lii lii ñu fi lii ñu fi gis les mêmes causes produisent les mêmes effets euh, lii ñu fi gis du lu yees dañoo am jafe-jafe ci li ñu nattoon li ñu la nattal nan la ñuy def ba nga bàyyi ñu ñu saytu ko assemblée nationale su mënatul évaluer jaratu ko mhm. nekkatul pouvoir parce que pouvoir la boo xamante ni dañ ko jox doole joo xamante ni war naa mën a saytu donc tey euh, je suis désolé de le dire mais argument bi gouvernement bi joxe par rapport à cette loi de règlement pour c'est un argument qui ne tient pas la route mhm. waaye tradition la boo xamante ni am nañ ko alors alors euh, dañuy dañuy déposer projet de loi yi ci benn benn registre est-ce que yow euh, jotu leen ci li nga xam ne moom mooy projet de loi règlement bi jotu leen ko vous confirmez que jotu ko différent de li nga xamante ne moom la coalition Benno Bokk Yaakaar wax ne ñoom euh, daanaka déposé nañu ko assemblée nationale il y a plus de vingt jours. jotaguñ ko suñ ci jot man suñ ko jotoon dama naan la jot naa ko jotaguñ ko. mais aussi c' le rôle du député mu dem vers l' est ce que def ngeen liggéey boobu nga xam ne waroon ngeen ko def yéen également. dama lay wax dama lay wax leneen lu gën a doy waar. assemblée nationale bi ñu am pour man dafa dafa jamono da koo jiitu. assemblée nationale bu bu bu bu màgget la ñu am bu lompoñ ci dëppoo ak jamono li mu laaj tey jii euh, demal nga xool la la assemblée nationale a du mal à se digitaliser maanaam xarala yu wees yi tey jii yow loo bëgg a xam assemblée nationale en un clic mënoon nga ko xam. Mm-hmm. depuis sa téléphone. Mm-hmm. tey jii loolu dafa des moo tax ñun ñu ne ba ci li nga xam ne doon nañ ko porter ci biir campagne bi mooy ñu am une rajo et une télévision parlementaire. mais suñu nee rajo et télévision parlementaire mooy aussi ñu am benn dispositif digital bu am solo boo xam dina mën a accompagner parlement bi li ngay wax noonu ne aller vers l'information mais justement un pouvoir qui n'a même pas la possibilité de porter la bonne information ci ñi nga xamante ni ñoom la mais mooy am na fu soxee te loolu yëpp ay réforme la yoo xamante ni administration parlementaire bi et Amadou Mame Diop moo ngi ko doon wax ci premier bi ñuy def bi ñu koy installé ne l'Assemblée nationale doit se réformer doit se même micro yu baax sax dañu am jafe bi chaise yu baax sax fi ngay toog dañu am jafe-jafe yëpp donc loolu pour man euh, un pouvoir doit pouvoir et justement dafa ñuy conforter ci benn religion boo xamante ni am nañu ko mooy Sénégal benn pouvoir rek a fi am muy pouvoir exécutif mm-hmm. on a une administration parlementaire mm-hmm. et on a une administration judiciaire loolu beneen débat mais encore une fois euh, on parle de la loi de règlement li tax moom mooy loi de finance bi nga xam ne war nañu commencer marathon budgétaire bi coalition wàllu Sénégal jàpp nañu ne aujourd'hui avant ñuy wax ci loolu il faut que les orientations yi suñu budget la déclaration de politique générale moo ko mën a définir et bi moom moo ko war a def Euh, ñoom ñaawlu nañu la fait que ñëwul la yow lan moo ciy sa position aujourd'hui c'est de respecter la loi li gën mooy mu ñëwoon ba pare wax li nga xamante ni euh, yéene li nga xamante ni moom la président de la république bëgg ci li nga xamante ni moom mooy budget bi mais encore une fois que mu ñëw il faut que ñu xam aussi premier ministre lan lay signifier juste premier ministre bi fii euh, c'est quoi son son boulot en fait lan mooy liggéeyam. Mhm. Amadou Ba c'est comme si le Sénégal n'avait pas de premier ministre ah. ah bon ah si le euh, premier ministre qui s'appelle Amadou mais oui mais le principe. mais lan ngeen ko dégg mu wax fi mu ne fan ngeen ko gis ci posture bi ci attitude bi damaa bëgg a wax ne premier ministre u Sénégal li ñuy xaar ci moom mu fees fauteuil bi dañ ko dañu jafe dafa jafe am combat mi ngi ci moom c'est-à-dire que depuis depuis que président Macky Sall am ay jafe ak ay premier ministre am premier ministre u Sénégal da ngay da ngay def profil bas mm-hmm. loolu moo tax assemblée nationale bis mu fay ñëw tamit on n'attend pas quelque chose d'extraordinaire c'est sur la forme la déclaration de politique générale mm. li ñu bëgg ci budget bi mooy li ñu bëgg ci budget 2019 2019 je parle sous votre contrôle mm-hmm. on avait parlé d'un budget social non budget social la ñu waxoon mm-hmm. parce que dañu tombé woon ak année électorale bi tamit année électorale la budget social la ñuy wax c'est-à-dire que euh, dans social bi ñëpp kenn mënu ko bañ mm-hmm. parce que ci réew solidarité dañ koy organiser mai xam nga lan la ñuy bañ mooy assistanat maanaam mën naa laa jàngal napp mhm. mais bàyyil ma lay may jën mhm. ngir nga may soxla toujours sax bu ma la soxlaa nga ñëw mhm. gis nga tey jii taux de chômage bi fi mu toll maanaam ndaw yi am métier chomage laa wax de mooy ko am métier xam nga chômeur mooy ku am métier ba pare te amoo liggéey di wut liggéey amuloo ko taux de chômage bi kenn ñoom ñemewuñu wax ñaata la waxuma la nag ñi nga xamante ni jàng nañ ba pare def formation te amuñu métier waxuma la ñi nga xamante ni dañoo nekk secteur informel bi te tey jii li yàlla xam doy na li ma bëgg a wax rek mooy il faut que ñu gën a sérieux je pense que dañoo manqué li ñuy wax un état stratége dañu on manque de sérieux on manque de rigueur et te manque de rigueur boobu et de sérieux bi moo feeñ ci difficulté bi ñu am ci indi loi de règlement à temps ba nga xamante dinañ ko mën a saytu leneen li mooy tey ji boo ko jëlee sur la gestion de ressources mhm. xam nga tey ji annoncé nañu cinquante milliards mhm. sur li nga xamante ni moom la ñu escompté mhm. mais jafe-jafe bi ñu am c'est-à-dire il faut qu'on arrête dans ce pays de mystifier le pétrole et de mythifier le pétrole c'est-à-dire que nañu bàyyi di wax ak sénégalais yi comme ñuy wax ak ñoom loo xamante ni ay malayka ñoo ko war a gérer wala ay malayka ñoo ko doon gérer depuis que le monde existe pétrole nit moo koy gérer mhm. et que ñu bañ gis nga ci sunu réew yi colons yi noonu lañ doon def ak sunu réew yi mooy suñu bañee ñu xam dañ naan ne vous ne pouvez pas comprendre pétrole c'est c'est une ressource comme tant d'autres mhm. mais lan moo tax sunu njort war a rafet ci pétrole mais Khady colonel mhm. or bi anamu zircon bi anamu phosphate bi anamu fer bi Falémé bi anamu nan lañu ko joxee mhm. tey ji boo jëlee pêche bi nga xamante ni tey suñu géej gi yëpp tey kenn xamul lu ci ne mhm. kenn xamu ñan ñoo ci nappee rey nañu pêche artisanale bi napp gi ba mu dee wet mais napp googu lan moo ci génn amul chiffre d'accord Sénégal fi mu ne nii ba ci xam nga ITIE dañ koy inscrire pour pour euh, pour euh, les industries extractives pour mu am kii mais tey ji disposition yi nga xamante ni am nañ ko sur l'international pour permettre Euh, la transparence dans les ressources halieutiques le Sénégal buggul sax ratifié ko. d'accord alors euh, ci ci déclaration de politique générale bi Fatou Abdou euh, tudd.